الفئات لنسفير حبيب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 في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر عائشة وما أدراك ما ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر وما ليلة القدر خير سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم yow العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل والمكارم بوكيني سيتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سارو سنو بوك بدون دون جانغ ليغي كوكو ديغ ريك دانا ام ساخيل تي لومو ساروي تودو سورة القدري بروم بي ديتي واختاني ليلة القدر ني توك في نك تاي ci Maulana Cheikh Seyda Alioune Ba fas yéene ko fee célébrer ànd koog njaboot gi ak mbokk yi comme ni nga xam ni moom noonu la ko fi daan defee bi mu demee ba jóge fi itam sunu baay sunu baay yi donn ko ci loolu tey nag ñun mbir mi dal sunu kaw ñu top ci seen watis rek fas yéene koo célébrer ñun itam leylatul qadri nag doy rek ci ku wala xamuloo njariñu wala importance laylatul xadri borom bi wax ci mu wax ni laylatul xadri xayrun min alfi shahri laylatul fat xadri moo gën junni weer junni weer nag boo ko seetee dafa mel ne mooy quatre-vingts ans ak trois mois juróom-ñett fukki at yu teg ay weer yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamanteni ci mi ngi fiy bëgg joggé dafa ñewon ton xeet yi yërëm leen daat ni waaw man ndax buma démé ba joggé aduna ndax dana amati ku wàccati di indi nuyo yàlla ci jaami jibril daal di cipp wàcc daat ni ko ah sa borom nee kat inna anzalnahu fi laylatil qadri وما أدراك ما ليلة القدر laylatul xadri xayrum min alfi shahri mu ni ko kat soo boroom nee na naa la sasaar wi fa tabaarakallaahu mu nekk na guddi goo xam ni toujours niñ koy waxee nit ki mu koy célébrer fas yéene cee taxaw fas yéene cee jaamu yàlla kooku la laylatul xadri nekk ci moom xayrun min alfi shahri léegi nag bu fekke laylatul qadri nek na ci mom yek na ni tay la laylatul qadri nek ci mom khairun min alf shahri jaamu yàlla ga mo motax ni wax bu ko defee nak koka tanazzalul malaika war ruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xata matlail fajr mu melne kon malaayika yi danañ wàcc indi yërmande yàlla mbolem ku nek di julit malaayika yi di jaamu yàlla malaayika yi danañ ñëw sa buntu néeg taxaw fa bu fekkee fekk nañ la ngay julli wala fekk nañ la ngay jàng alquran wala fekk nañ la ngay def saxaba ay mala ay saaba yonenti euh, malaayika yi danañ la jéggulul malaayika yi danañ la balul sa borom mu mel ne kon guddi gi guddi yërmande la ba mu des rek ci ñeent yàlla nañ ci yàlla musal bokk na ci ñooñu nit ki nga xamante ni si dafay ŋàññi ay way juróom yal ci yàlla bokk na ci ñooñu nit ki nga xamante ni si dafay naan sàngara te tuubu ko bokk na ci ñooñu nit ki nga xam ni dafay xotti ormay dëkkandoo mu mel ne nag leylatul qadr yi dafa wàcc ci weeru koor waaye itam leylatul qadr yi dafa wàcc ci guddi googu alquran sunu borom wax ko alquran wàcc gi nga xam ni mi ko wàcc ci weeru koor daal ni chahru ramadan alladi unzila fihi alquran huddan linnaasi wa bayinatin min alhuda wal furqan mu daal ni weere ngi woo xam ni kat man teralal naa terale naa ko ummatu muhammad sallallahu alayhi wa lu tax ma terale leen ko ngir rek li nga xamante ni si moom lañuy séenu ci ñoom la te mooy taqwa la alakum tattaqu moo tax ma wàccee leen Euh, chehru ramadan nga xam ni mooy weeru koor borom buy wax ni kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tattaqun man yàlla faratal naa ci yéen koor comme ni nga xamante ni si noonu laa ko farataaloon ci xeet yi nga xam ni ñoom ñoo leen jiitu résultat bi pour lan ma farataal ci yéen koor laalakum tattaqun ngir rek ngeen am taqwa te mooy ragal yàlla mu mel na kon taqwa dafa mel ne ne lépp jaam bi jaam bi lu muy sàkku rek na fexe ba am ragal yàlla bu amee ragal yàlla rek dana ko am boo bëggee xam-xam amal ragal yàlla rek boo bëggee alalu àdduna amal ragal yàlla boo bëggee am ay doom amal ragal boo bëggee nekk waliyu amal ragal yàlla moo tax yàlla tënku ko ci benn aaya bu gàtt rek wa man yattaqillah yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib képp koo xamante sii fexe nga ba waa nekk ci yow nga bàyyi xel yàlla ci looy bëgg a def ragal ko tiit ko xam ni dana am bis boo xam ne yàq sa boroom kese nga bàyyi xel ci loola yàlla nee na kat man dana fexe ba naa ko wutal ussi da nga fexe ba am foo jaar ba génn waaye itam li ngeen gën a bëgg te mooy wërsëg diggante ay doom diggante ay koom-koom ay yëre ay tool ay oto ay danaa fexe ba bu ngeen amee taqwa rek ngeen am lool waaye itam nag guddi nag ñu bàyyi xel ni moom mooy anniversaire u alquran alquran bii nga xam ni moom mooy téere jullit guddi laylatul qadri moom mooy anniversaire ndax sunu borom moom moo wax ni inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka alquran wàcc naa ko ci guddi bu sell kon daal mbokk yi ci gàttal daal lii moo tax ñu tànt fii tey fas ne ko célébrer ànd koog jullit yépp di ñaan yàlla lépp luñ ci def rek yàlla nekk yiw ñu séddoo ko ak jullit yépp yàlla faj aajo yépp baal ñu sunu ay bàkkaar def ñu ay julli xàqan nangul ñu sunu koor xale yi yàlla def ci ñoom barke ñi nga xam ni tam ñoo fi ñëw di taataan sunuy sunuy kàddu te heure bu ne lu xew ci kër gi rek ñu gis leen seen liggéey bi yàlla na yàlla def ci ñoom barke wax dëgg yàlla ay soldaar yi diine ji lañu fu diine ji tëggee rek boo geesoo da nga leen fi gis yàlla yàlla faj seeni aajo ñoom itam lii rek lañu amoon ci gàttal salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن